fii terrain yëpp jaay nañ ko fii amul terrain amul espace public amul dara fii amul dara foo teg mairie ne la dégage te ëllëg keneen mun na faa nekk waaw waaw waaw ñoo jënd suñu ñoo jënd suñu pompe ñaari pompe yu bees tàkk ak suñu propre moyen suñu xaalis ñoo jënd pompe